jërë ngeen jëf yéen ñi taamu dakarnet.com n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que ngeen mën di jot suñu video yi ñuy dugal saa su nekk comme ça vous serez les premiers à être servis. ñu dem fële ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn góor gu am plus de soixante-dix ans di wuyoo ci initiali Ika moom lañu fekk mu génn àdduna ci benn jàkka fële ca kër Sayid Ndoy nekk ci commune nord. góor gi nag dañ ko fekk mu yor benn kaamil alquran ci loxoom ci biir jàkka ji bañ ko fekkee nag mu génn àdduna woo nañ ñii di waa service d'hygiène woo waa sapeur pompier ba ñu ñëwee nag kenn ku nekk def nga sa liggéey ba ñu paree dañu jël góor gi daal di koy yóbbu fële ci hôpital régional bu Thiès jamono ji nag li population bi di laaj mooy est-ce que góor gi dafa génn àdduna de de façon naturelle wala dafa lié au coronavirus du Covid-19 pour indi tontu ci laaj yooyu nag jamono ji nag kenn mënagu cee wax lu leer ñi ngi xaar waa kër docteur ñu génnee xibaar yi comme ça ñu mën cee xam lu leer ndax dafa génn àdduna dem façon naturelle wala c'est lié au coronavirus du Covid 19. lu ci mënti xaw rek ñu ngi leen koy toppal incha allahu rabbi ba lépp luñ ci am rek dinañ leen ko yeggee.